la ñu fa euh, nemmeeku daañu wax euh, ci jàngoro coronavirus tolluwaayam ci mim réew xam nga ne limub doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci faatu jamono yi nag ñu ngi gën di bari niki démb lu tollook fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci euh, toftalu ci lim woowee nga xam ne jot nañ cee dëddu téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo Fama Mbaye ab sage-femme la nga xam ne ma nga nekkoon ca poste de santé bu Thiali daal dinay génn àddina jamono yi nag ñu ñu ngi ruumandaat ndax itam ci mbas mi la génnee àddina am déet lu mu ci mënti doon ay ñooñam nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax yenn ci ñàkk ci ay jumtuwaay yoo xamante ni euh, ñu ngi ko euh, nemmeeku euh, fële nga xam ne moom moo di ca Ndar géej nag mu mel ni waxtu couvre-feu bu jotee nag ñu bëri daañu fatu makkaan yi dugg si loo xàll woowee ngeen gis nag dem ak dikk bi nag mu mel ni kenn du fa nekk donte ñoom bokkuñu ci li nga xam ne rek moom moo di couvre-feu bi yenn ci ay barab yoo xamante ni itam nit ñi dañ fay faral di daje bu jotee dañuy daal di euh, tëj rap équipe internationale d'experts euh, chinois ak itam OMS euh, nag daal di nañuy fësal li ñu xam lu njëkk ci jàngoro jàngoroy coronavirus li ñu njort moom moo di xam guñu malaw wi nga xam ne rek moom moo tax boobule jàngoro daal di saawaan ci àdduna wërngal këpp naka noonu itam ñu ngi amaloon ab visite ci institut bu virologie bu Wuhan ca diwaan bu Chine mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal li nga xam ne rek moom la yéen kaay yi xëy ni ki tey ji léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee jërë jëf mbokk yi ñu waat leen ci uh, gën gi nuyu xibaar yi uh, doore ko ca diwaan bu uh, Bignona nag jàppale ne jamono yi may wax ak yéen nag mu mel ni itam ay jàmmaarloo ñu ngay wëy di fa am nag xàll wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu ngay wëy di fi taali pono ay ñooñu nag Ousmane Sonko bokk na ci li ñuy naqarlu ba tey li nga xam ne xew-xew la niki démb fii ci Ndakaaru ñu gën koo xam ci mbiru usmaan Sonko ak itam soxna wi nga xam ne euh, moom moo ko wax ne rek ne euh, da ko doon euh, sàkku ci loo xamante ni nekkul coobareem daan ci ñëwaat mu gën a yaatoo woowule xibaar suñu ndaw la nga xam ne moom moo teewal télévision Futur Média diwaanu Ziguinchor moom bu Boubacar Diassi moom moo ñu ko xamal cité kër góor gi xam ngeen ne ni ki démb tàngoon na lool waaye itam mu mel ni jàmm daal dina fay euh, dellu si li ko waraloon bokk na ci rek euh, way takk der yi ak itam euh, patriote yi nag te neewoon foofe nag lankoon na rek ne du ñu amal ab rassemblement ñoom ci seen bopp nag taxawoon temm ne ne daañu kiir ki nga xam ne moom moo di seen ak njiit suñu ay ndaw demaat nañ dajeek yooyu le patriote Abdoulaye Diop. ñaawlu li nga xamante ni moo am ci suñu réew parce que du suñu cosaan du suñu aada. jaay doole kenn xamu ko fen yàlla suñu borom moo ëpp ñëpp doole te mosu ko wonee yàlla suñu borom moo ëpp ñëpp doole bu ko neexoon mu bàyyi géej gi mu fekk suñu bu ko neexoon mu xar suuf si mu fekk suñu mais il l'a pas fait il sait que tôt ou tard le jugement dernier va venir tôt ñëw taxaw ci kanamam yaa ngi dégg donc defu ko. pour man Sénégal ak Afrique war nañ dépasser yii nii xeex fii kii ñëw fee kii ñëw dóorante policiers yi ñun ak ñoom ñu sommes tous que muy policier que muy la gendarmerie pour man jaru ko waaw on devait même le faire affaire bi yow na quoi que justice soit faite bu defee ñu appliqué bu deful ñu xam ne deful mais du tax sénégalais reculer intimidation du jàll san ne passera pas ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ñaawlu li nga xam ne nag moom mooy xew fii ci réew bu Sénégal di Front National bu euh, résistance bu ñu sukkandikoo euh, ci ki nga xam ne rek moom moo di euh, Matar Souran li mu xamle moom moo di lépp lu soxal wàllu dictature la ñuy nemmeeku fii ci réew bu Sénégal maanaam foqati ak ak yelleef doomu aadama yi kenn du sañ a wax ci li nga xam ne rek moom moo di sap xalaat naka noonu itam muy dànkaafu rek njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall Matar Souran moom moo nekkoon ganuk Infos du matin ba mu ca noppee séq na ab waxtaan ak Chérif Dia ñu teewlu. jaaduwul nit opposant am problème dem ñu dem police la ñu waxante ca police ba ñu xëy suba teel euh, mu nekk ci presse bi mu nekk ñëpp yëg ko. loolu euh, li mu tekki mooy dañu ko bëgg euh, yàq deram ba nga xam ni dootul tekki dara ba nga xam ni moom dootul doon adversaire boo xam dana leen mën a jaaxal parce que li ñu seetlu ci réew mi te wax nañ ko suñu déclaration mooy képp ku jóg di politique tey te ñu ñi yaakaar la dañ lay faagaagal def nañ ko xalifa Sall def nañ ko Karim Karim Meïssa Wade def na jéem nañ ko def également ci Abdou mbay ak ci Bougane Gueye Dany tey euh, évidement Ousmane Sonko la xam nga koo xam ni yow maanaam bëggoo benn mbër bu taxaw bépp mbër boo xam ne yaakaar nga ni. Euh, teg am na doole te mun na la daan da koy faagaaga parce que démocratie li tax ñu koy def mooy indi moytu fitna parce que li xew démb fitna la boo xam ni xam nga koo xam ne dafa am otoom moom yoonam newu ci euh, liggéey ba am otoom ñu ñëw toj ko wala koo xam ne dafa am këram ñu taal ko ak ku munti doon ak foo mun a féete ak koo xam ni xam nga mi ngi jóg euh, xëy na gëm-gëm dégg na mbir mi mu dem kër Sonko Ousmane sonk pour pour massawu ko loolu mënoon nañ bàyyi rek Ousmane Sonko génn wax ak citoyens yi wax ak sénégalais yi du xew. Euh, mbir moomee sax euh, di soxal mbirum Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr mbokk jàppale ne euh, section recherche nag daal di nay tënk enquête wa nga xam ne mi ngi ko doon def ca woowule mbir dossier bi jàppaleen ba tey ne daañ ko jébbal procureur de la république ni tey ji lay doon lum ci mënti doon itam dinañu fexe ngeen am bépp xibaar jëm ca woowule wàll. ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bu ñu door yi la jotaayu xibaar di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppaleen ne li doomi aadama yi nga xam ne euh, ñoom ñoo ci euh, faatu nag mi ngi gën di bari di ki démb lu tolloog fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo jota toftalu euh, ca woowule lim téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yi nga xam ne def nañu ko ñu dem ca ministère de la santé teewlu point bi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 Fama Mbaye mbokk yi ab sage femme la ca poste santé wu euh, Thialy nag jamono yi ñu ngi ruumandaat ndax dafa génn àddina euh, ci mbas meem ak déet waaye lu mu ci mënti doon ay naataangoom nag di yëngu ci wàllu ko docteur ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ñàkkum jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku euh, ci yile jamono ndax itam jàpp nañ ne daal lépp lu soxal loo xamante ni war nañoo mën a fegu ci jàngoro jàngoroy coronavirus loolee lépp nag dafa war a mën a nekk ci seen suufu gét ca diwaan bu Thiès Cheikh Anta Diop Sey Latir Pama Mbaye nekkoon sage ci poste de bii di Petit Thialy nekk fii ci commune Thiès Nord nit ñi ngi lam-laamee ne jàngoro ji di coronavirus moom moo ko faat ñii di ay naataangoom di ay infirmier d'état ak i sage-femme jóg taxaw ci ay mbiram ne nag li ko yóbbu de ñàkk jumtukaay moom moo ko waral. dund ak dee mu ngi ci loxo yàlla suñu borom loolu ku ne xam na ko mais am na yenn conditions yoo xam te nit waru ci gaañu. waru ci décédé ma amoon nañ ngërëm suñu médecin chef district parce que lépp lu mu waroon def def na ko même scanner bi ñu ko bindaloon sax moom moo ko fay scanner wane ne feebar mu ngi ci moom bu demee hôpital ci bâche lañ ko dugal woote Dakar amul place mu woote Touba yaakaar na bu demee Touba dina sauvé wu ñun mënuñu nangu ci système de santé boo xam ne ñun mu ngi dox nu mu a doxee ñuy évacuer un agent wala benn personne lambda à des centaines de kilomètres pour a jóg ci que nekk na lu tax ñu tëj CTE euh, bu base militaire lu tax ñu tëj CTE euh, bu bu bu gërëw nañ ko ubbi. maladie bi mu ngi avancé te bu ñu continuer nii dina indi ay jafe-jafe. sage-femme yeeg infirmier d'État yi nekk fii ci diwaanu Thiès nee nañ lu jëm ci wàllu jumtukaay it néewle nañ ko lool ci seen poste yi. masque comité santé yi dañoo jënd jënd jënd bay bëgg a dee commencé nañu nag jox mais dotation yi ñu jox bariwul. fii ma lay waxee yow ni boo soxlaa gant mënoo ko gis district mënoo ko gis parce que gant amul da ngay jënd boîte gant à 6000 francs na lu métti nañu jàppale parce que mënuñu liggéey sans gants mënuñu liggéey sans masque. waa direction hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès docteur yeeg directeur beeg xamal nañu ne soxna sii di Fama mbay lépp lu ci waroon de def nañu ko yaboon nañ ko ci ambulance sampal ko butéelu oxygène boole ko ak infirmier teg ko ci ambulance médicalisée yóbbu ko ca Touba foofee la ñàkk bakkanam suñu borom daal di koy àtte ci yërmandeem Cheikh Anta Diop ñu des ci leneen wax ci leneen itam euh, mu di euh, doomi aadama yi nga xam ne euh, nemmeeku nañu jàngoroy coronavirus ci seen ak yaram seen ak lim toll ci ñeent nag ca université Assane Seck diwaan bu Sikicoor foofee nag ña ngànk woowule université nag dëggal nañu ko waaye li ñu xamle moom moo di nag jamono ñu ngi def kem kàttan ci wérgu yaramuk ñooñee lépp lu soxal nag wàllu dakkal njàng mi ak njàngale mi ca woowule makkaan jàpp nañ ne lu ni mel euh, mu ne su ko addu ñu teewlu euh, docteur Babacar saax moom mooy euh, directeur bu communication bu université Assane Seck diwaan bu Sikicoor ki teewlu ay kàddoom Babacar Diassi la ak Lamine Mandiang. mbas mi juux na ci université moo waral recteur oo leen tey pour ñu waxtaan ci ñu fi jeexee mooy dañ sant yàlla ba dispositif bi nga xam ne moom la ñu nekk teg ko fonctionné ne ba nga xam ne bi fi mu ne fee jaax dispositif bi nee na taxaw. ba génn nañ quatre cas yi circonscrire nañ ko ñu ngi leen di traité tolluwaay bi ñeenti cas la ñett ñi ñett ñi ñu ngi leen di traité ñu ngi leen def ci hôpital université benn cas bi mu ngi këram ñu ngi koy suivre waaye mu ngi këram mu ngi dem ak ñëw kon nag nga xam ne seeni i garaawul noonu dara garaawul ci lu mais nag loo gis ci réew mi dañ ko war a waxtaanee léegi nag li wër te wóor mooy nañu fexe ba mu yem ci ñeenti yooyu moo tax disposition yi ci war yëpp matuwaay yi ci war yëpp tey taxaw nañ ci xam nga université ay famille la autorité rectorale ñooy doxal université bi bés bu ñu demoon ñoom ba gis ne dañu war a aj cours yi xaj na ñoom dinañ jël décision bi ci war waxtu bu ñu tëj heure de cours day influer ci année bi semestre bi douze semaine la bu ci benn semaine manqué day indi problème bu ñu demoon nag ba mbir mi garaaw a garaaw a garaaw boo war a laaj ñu war a aj bu karagee ñi ñi yelloo décision bi dinañ ko jël doxal ko mbokk yi ñu baaxee leen xibaar yu lee nga xam ne léegi la daal di wàcc mu mel ni nag membre yu bureau yu assemblée nationale daal di leen di woolu uh, ci aw uh, ndaje wala bokk waxtaan réunion woo xamante ni na nañ ko amal ci fukki fan ak benn ci weer wi nga xam ne moom la ñu nekk bu uh, midi jotee ordre di jour bi nag daañu ko amal nag ci ab waxtaan. ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junjub ñu door yi la jotaayu xibaar diwaanu euh, Ndar Géej foofee nag xam ngeen ne boobu boobule région bokkul benn yoon ci li nga xam ne moom moo di couvre-feu bi waaye dañ seetlu ne bu vingt heures jotee nag xàll wa kenn dootu ca nekk yenn ci ay barab yoo xamante ni dañ fa daan faral di euh, daje nag dañ koy daal di euh, tëj diwaan bu Ndar ci ñu ndaw la nga xam ne ñoo fa teewal télévision Futur Média u Diop Habib Seck. ñu ngi ndar yi fii lépp ni wala boog ci pont Faidherbe bu Ndar fii lépp ñu teg bu dul ay oto yoo xamante ñu ngi jaar. moo ne day ci jamono jooju ca Ndakaaru wala ci Thiès couvre-feu bi tàmbali na waaye nag fii amul lenn loo xamante ni wuute na ko diwaat yu ni mel. ñu si bari sax jàpp ni askan wi lu ci bari ñu dem doxi seeni soxla mooy waaru Covid 19 bi ak li nga xamante ni sedd bi nga xamante ni jamono jëlee dafa tar lool ci diwaan bi. waa parce que xam naa nag seddaay bi la ba pare nit ñi nag dañu ragal. looloo tax duñu génn ak seddaay bi et tout ça moo tax euh, waaw nit ñi toog seen kër yi. sedd bi Genève d'une part parce que au fait que climat aussi tamit mais dama di corona bi daal euh, moo gën a impact dëggantaan. parce que daaw na sedd nit ñi daawoon sol seen yére nice génn doxantu xool dëkk bi mais demeewul noonu daal li ba. couvre-feu bi nag ay weer askanu Ndar ñamoon nañ ko ci kàddug Ambroise Gomis bi nga xamante ni gérant salon de télé. nee na loolee ba léegi moo des ci xelu nit ñi. ab nañu habitude bi léegi léegi dañu tàmm sax léegi euh, vingt deux heures vingt trois heures ñëpp tëdd nañu Saint-Louis moom parce que dañu respecté couvre-feu. dañu demoon nañ ba am habitude boobu sax ba après couvre-feu bi les gens continuaient à à ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diwaan Ndar géej kàddu yi ñu yëkkati jëmale ko ci yenn diwaan yi nga xamante ni jamono jile dafa am couvre-feu te askan wi mënuñu génn mooy nii nañu muñ waaye tamit làmboo xeex lu jëm ci feebaru coronavirus bi. waaw ah li may yóbbate mooy ñu mun rek jéem a kii wa ànd ak mesure rek xeexe moom rek affaire moom yaakaar naa ñun population bi ñoo ko war a xeex xeex bi du kenn xeex bi. leen mën a wax daal mooy ñu muñ parce que metti na tamit nu tëj le vingt et une heures mais nu muñ parce que tamit euh, franchement ndogalu yàlla la. feebaru coronavirus bi tax couvre-feu bi ñu koy amal ci diwaan yu bari ci Sénégal jamono jile. ndar moom couvre-feu amu fi waaye mu mel ne am na fi ndaxte ñi génn di dox bu vingt et une jotee lim ba day néew lool.

Euh, jërëjëf euh, Ousseynou ñu fàttali rek ne euh, équipe internationale d' experts chinois ak itam OMS nag jamono yi daal nañuy fësal li ñu jot a gis ci jàngoroy coronavirus lu njëkk nag ginnaaw seen ak doxu nax doxu nemmeeku ci institut bu virologie ca Wuhan diwaanu Chine li ñu xamle moom moo di gisaguñu benn yoon wala boog xam guñu ban mala rek moo tax jàngoroy coronavirus daal di gane si àdduna wërngal këpp. lépp ñu wax euh, ci leneen mu ñeel wàllu xarala yu yees yi jàpp leen ne nag lu jëm ci euh, Facebook ak itam Instagram jamono yi nag daal di nañuy gën a baral li nga xam ne euh, moom moo di xeexu jàngoro jàngoroy coronavirus naka noonu itam yenn ci ay dogal yoo xamante ni nag daal di koy teg li ñu bëgg moom moo di nag daal di jàppale nag ñi nga xam ne ñu ngi def kéem kàttan ngir rek lépp lu soxal jàngoro jàngoroy coronavirus daal di ñuy abal ndax itam ku nekk xam na ne way jëfandikoo yi bari nañ ci àdduna wërngal këpp. ci yooyu le eh, xarala ñu wax ci leneen ginnaaw nag ab ndaje woo xamante ni ñu ngi ko jagleel lépp lu soxal wàllu risque ak itam surveillance bu eh, phytosanitaire nag direction bu protection eh, bu végétaux ñoom ñoo doon amal lu mel li ñu xamle moom moo di lépp lu soxal wàllu qualité jàpp nañ ne dina gën a ñoŋ fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu docteur Saliou Ngom moom mooy directeur général bu DPV ki taataan ay kàddoom Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. waaw lu ñu soxla woon la nag lu ñu soxla woon ndax ay jamono dañuy waxoon ne ñun dañoo war a atteindre lu ñuy wax autosuffisance lu ñuy wax souveraineté alimentaire maanaam dem ba nga xam ne ñi nga xam ne ñun ñoo koy béy ñu mën koo béyal suñu bopp amal ko suñu bopp mais bu ñu ko béyee ba pare nag dafa nekk war a nekk ay produits yoo xam ne maanaam du ñu jox benn doomu jàngaro donc formation bu mel nii nag bu ñu ko amee ñu mën a permettre loolu aar population aar bi mais dinañu mën a permettre également ñu am produit yoo xam ne dañ ko mën a jaay bitim réew ndax xëy na douane wàccee mais li ci mel ni maanaam norme yi nga xam ne dañ ko war a respecter en terme de contaminant maanaam ci doomu jàngale nga xam ne dafay nekk ci produit agricoles yi dañ ko war a respecter donc formation dafay mën a tax ñun suñu experts yi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne ñooy gunge producteur bi ñu mën a am expertise boobu ngir mën a taxaw producteurs yi ngir am production yoo xam ne production qualité lay doon pour ñu mën ko jegaani jaay ko bitim réew xibaaru biti réew boobee nag ki la ñuy addu Méditerranée nag mu mel ni Océan Viking nag jaal dinay euh, sowe lu toll ci euh, ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay euh, migrants guddik alxemes jàpp ajjuma ci côte yu Libye nag mu mel ni bile yoon nekk ñaareelu campagne bi nga xam ne ñu ngi koy amal lépp lu soxal wàllu sauvetage ginnaaw boobee nag nga xam ne lépp lu soxal dem ak dikk ci wàllu wax yi nag dañu ko rek dakkaloon ci fukki fan ak ak benn euh, ci weeru euh, janvier ginnaaw nag euh, juróom weer yoo xamante ni bloqué woon na ca kee yu Italie boobu le xibaar itam daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen mu soxal wàllu tàggat yaram basket nag mu mel ni daal nañu xam fukki gaynde ak ñaari nag yu équipe nationale yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a amal si tournoi bu Yaoundé qualificatif wu bool nag ci atum 2021 jàppale ne euh, ki nga xam ne moom moo di meneur de jeu bu euh, rek euh, Dakar Université Club di Thierno Ibrahima Niang ku nekk xam nañ ko ci xarañteefam loolee nga xam ne nag mi ngi koy def jamono yi nag taxaw taxaw na témb ngir daal indi ab njàpp ndalam ci équipe nationale dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra. dama am yoo xam ne ni dañ may xaw a yokk confiance naan ma sànnil bal bi sànnil bal bi te yàlla def na ne maa liggéey bu baax a baax so li ñuy liggéey rek la ñuy ñëw fii di ko tari parfois mu dox parfois du dox mais ñi ngi si kawam daal di liggéey yàlla baax na. sélection ànd équipe nationale ñi ngi sant yàlla xam nga équipe ginnaaw ab taxaw seetlu mu mel ni nag Babacar Ndiaye nag dàqul benn yoon ngir rek ñu daal di ubbiwaat stade yi ngir rek public bi ñëw ndax ku nekk xam ne ni itam lu ni mel dina gën a tax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi ah, daal di ah, sawar ñu wax ci weneen a ponk ci la jotaayu xibaar mbokk yi li ci yéene yi jërë ngeen jëf sonko le sonko boys sonkiste tour we nag yéen a kaay yi xëy nañu ko ñoo ñooñu Ousmane Sonko yi ngir nettali ñu li ñu def ci dëkk beeg ni ñu def dëkk bi démb ubbi l'observateur ay photo la ñu journal bi tegal ngir misaal ñu la am démb ci Ndakaaru journal bi nañu Ousmane Sonko ma ñu convoqué woon ca gendarmerie mu ne du fa dem di wuy ji te dindi wuñu immunité parlementaire am loolee moo waraloon démb ay farandom ak i am di jàmmam xëyoon ca këram ga ca cité kër góor gi demoon doon ko jàppale waa police yéegoon ba demoon doon tasi rassemblement ba ca la jàmmu jeexee jàppante ba newoon kurru ci seen biir joorantey lacrymogène ya mel ne bu ma la ko waxate am na ñu ca jëlee gaañu-gaañu ami wata yu ñu fa taal amit ay kër yu ñu fa caxat-caxate kër ñoom Mamadou Mamour Diallo gu ci Louga ci la bokk ba ci siggi coor sax l'observateur nee nañu am nay militant yu Ousmane Sonko yu wàccoon ca mbedd ma ba doon jàmmaarloog takk der ya foofee ñi doon manifester fii ci Dakar l'observateur nee nañu arrêté nañu ci ñoom ñeen fukk ak juróom ba ci waa ji doon taal watay bu ñu defoon indee fitna ak kawo ci dëkk bi ci diggante cité kër góor gi sacré kër ba ci wedeen bi lépp jaxasoo ay wata yu ñu taal ay édifice yu ñu yàqate ba ci magasin Auchan ba ca sacré kër gaa ñi dañu ko songu caxat-caxatee ko gis nañu it benn policier boo xam ne muul di brique moom lañu ko assommé la Sénégal nañu sonkiste yi fépp la ñu taal démb ba muy jax-jaxi ci réew mi lépp rek ngir doon wane ne ànduñu ci convoqué gi ñu convoqué seen waa ji ca gendarmerie li ñooñu Ousmane Sonko yi def démb ci dëkk bi ak ni ñu xëy ak takk der yi journal Le Témoin moom intifada la ko tudde journal bi jàpp ne ci li leen Ousmane Sonko woo ci loole rek la ñu ko wujji ba mu jaral leen ñu jaxasi dëkk bi taal fi ay wata yàqati fi ay magasin ak station essence jàppante fi lu réyit ak takkadeer yi téemoñ a tegal ñu ci ne ñaxtu yeeg njàppale gi jëm ci Ousmane Sonko yamuroon rek ci Ndakaaru amoon na ci Sigicoor ca Kees ca Louga ba ci Palais la France journal bi nañu ñuy jàppal tànk Ousmane Sonko dominé nañu mbedd mi démb ci diggante Ndakaaru ak Paris lëkkutëje ne ko moom kay maase nañu dëkk bi ak doole te noonee ñu doxalee démb nag dafay gën a dugal kii di Ousmane a rek la gu ne Ousmane yi def démb ci dëkk bi waaye nag ñoom militant yi Ousmane Sonko yi defuñu dara lu dul li leen seen leader sant te démb ci seen manifester ga dañoo meloon ne ñu sëngile France am ci réew mi ne li ñu fi yàq mu di station Total ba ca Liberté 6 ak ba ca Xaar Yàlla yàqate nañu it magasin Auchan ba ca Sacré-Cœur Sud Quotidien bind ne seen waa ji ñuy tuumal mbiri viol ci benn maasekat bu jigéen tax ñu wolu ko ci gendarmerie fa di ko tas yi fa la fitna ja tàmbale yéenekaay bi xamal nañu ne ci fan yi di ñëw procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye dina génn wax ci li xew li xew mu di mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr journaliste ko nee nañu enquête kat ya ca ne woon doon enquête noppi nañu ci seen enquête ba ba tey ji ci lañu fas yéene jébal dossier bi procureur de la république waaye ba léegi nag amagul kenn ku ñu ci arrêté baaboo kenn ku ñu ci defeere ba léegi it yéenekaay bi nee nañu sisir gu ñu assemblée nationale ngir lu jëm ci lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waaye ak ni ñu ko journaliste ko bindalee loolee naruta yàgg soleil national ne tàmbali nañu ko nañu procédure bi jëm ci dindi immunité parlementaire di mbalaanum kiir laay gi Ousmane amee ci assemblée nationale ñoo nga ca bu ko bureau assemblée nationale bi nangoo yëf dana jël lu mu néew néew juróom-ñetti fan fan yi xale bi xew di Adji Sarr l'observateur ak lii xëy nañu ko tàcc di ko waxtaane ci seen xëtu njëkk ubbi lii quotidien bi nee nañu ci ñu ko xamul xale bu jigéen bi Adji Rabi Sarr la tudd bu dul ab saay-saay génnul ci unku yi aji njëkk a tëgg wëndeel ndax waa ji da ko bëggoon bëggoon koo takk lu nekk defal na ko ndekete booba aji saar da ko doon baraan yamul woon rekk ci moom bi histoire bi kalaatee lii quotidien nee nañu histoire bu rëy la juróon ca dëkk ba ba far wa sax tuuti konoon mu ñàkk ci bakkanam aji saar mi waral coow li tax ñépp bëgg a xam nan la mel yéenekaay bi di l'observateur luqati na fotom ba tegal ñu ko ci xët mu njëkk Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeena la baa ngi lay dégg ngay wax bureau bu assemblée nationale waaye mbokk yi jàppale ne daal nañuy woote ab réunion euh, ci fukki fan ak benn ci weer wile nga xam ne moom la ñu nekk bu euh, midi euh, jotee. egsi nañ ci weneen ab ponk ci la jotaayu xibaar wala boog dama leen di bàyyi ñoom ci seen bopp ñu wëyal seen ab émission li ci internet bi Merveille ak Mohamed Ndiaye maa ngi lay nuyu Mamadou. ñoo lay ziar euh, Cheikh ñi nuyu wax nga ko boo jeexalee. Hmm. man ak mairie tey la mardi ñu ñëw yaatal ci biir internet bi. jox leen sujet comme d'habitude comme ngeen koy faral di euh, que nit ki da ngay fidèle bu ñu la euh, leen tey ma bàyyi leen rek ngeen wax ci dogal wi nga xam ne Facebook jël nañ ko mu ñeel lépp lu soxal. wàllu xeexub jàngoroy coronavirus xam naa ne di ngeen ko waxtaanee wala suba ngeen koy waxtaanee. su dinañ ci ñëw tey mais dañ cee cof rek suba hmm. ñu gën ko yaat yaatal mais lu am solo la. Mhm. Facebook Instagram boo ko waxee daanaka benn la ndaxte ki leen moom muy kenn di Mark Zuckerberg jël na décision yu am solo mhm. ci mbirum eh, jamono yi nga xam ni info news eh, info wala fake news yi dafay bari ci jamono mhm. ji ak mbirum vaccin yeeg yooyu jël na ci ay ndogal yu am solo. ci kanam dinañ ci ñëw mais surtout ñoom ñi nga xamante ne waxoon nañ ko semaine dernière ne eh, Mark dafa wax ni dafa bëgg a génn ci mbirum politique. te pourtant fi mu yegg si nii tey di Facebook wala Instagram politique moo ko fi indi. mais foog naa ne Facebook ak Instagram yu yees yi daanaka pense que bu ñu duggee ci xeexub jàngoroy coronavirus dinañ ci am doole ndax itam euh, nañ. ci lu ëpp ñaari milliards yi doomu aadama yoo xam ne ñu ngi utiliser réseau social boobu di Facebook. Mm-hmm. donc moo tax ñëpp seen xam borom xam-xam yëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci mbirum digital. dañoo mm-hmm. njort ne ñoom buñ ci taxawee yéy ci yàbbi war nañ ci gën a mën a euh, ñoŋal lii di vaccin yi wala mbirum euh, xeexum coronavirus bi. te mm-hmm. loolu dina nekk lu am solo. bokk na ci moyen de communication yi nga xam ne moom moo gën a wóor ci yële jamono itam lépp lu soxal wàllu fake news yu nuy eh, xeetoo ni ma leen ko waxee bu ngeen faralul di ko wax man ma koy wax mbokk téléspectateurs yi. jërëjëf ci yi. jërëjëf voilà jërëjëf suba naa leen jox yeneen ñaari sujet incha allah. muy moom Cheikh. ah waaw merci David. moom nga David David Pujada. <laughs> Mère Beye sama noonu la jërëjëf mu Ndiaye ak Mère Beye Diouf mbokk yi ñu jaare fa yëkkati eh, jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf